الحمد لله الذي أسرق في قلوب من ساء من عباده أنوار اليقين ونشطت جوارهم للطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها الناس بوكي جلدي دنا بنو سانت يالا سبحانه وتعالى موم ميغا خامني سانت جيب جيب نيال نك موي بور بيغا خامني موي جوليل سي خولي نيكا سوف اي جامام لير يقين ني لير كواليتي ba mu saxal ci seeni xol ñu man di topp borom bi léegi subhanahu wa taala sant ñeel na ko ma mbuur bu màgg bu koye boobu ñu ngi koy sant moom mi nga xam ne mooy xiwalee di méngale xiwal yi di ko toftale ci bépp jamono ñu ngi dimbandekoo ci moom subhanahu wa taala waaye di ko jégglu ci tukkee ci mbooleem bàkkaar yi nga xam ne kenn ku ne si ñun tey la neen ko ko ngi seede tay dëggal ne amul benn buur bu ñuy jaamu jaamu gay jëriñ ba muy lor burul yàlla subhanahu wa taala tay seede tay dëggal ne sunu sang ba sayidina muhammad rasulullahi ndawam la yal na yàlla dool si moom xiiwal ak mucc moo ki ñooñam ak mboolem bami mbokk julli di gannaaw bu ñu sant yàlla subhanahu wa taala ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla ak topp yàlla mbokk yi na ngeen xam bu baax ne naka aduna ñu nekk ak mi nek ci biir aduna mi yépp ay ceeneer lay ki junoox du dara day niru dara ta du dara junoox moy bo topé tali bi waxtu beccëk da ngay seen ci kanam lu melni am ndox bo aggé fa nga ko seen dafa fekk dara non la aduna mel dafay niru dara ta du dara kon gella yow julli la la xamné ne mi du dara lépp lo xamné nek na ci kaw suuf bënd la ngeen ko xamé non mu mel ni nag dafa am ci nit ñi ñaari ñaari xaaj mu am ci nit ñi nit ñoo xam ne suñ suñu borom da naa nattoo seen xol yi bëgg adduna jaxasoo ca ba nga xam ne duñ soxlawoo sàkku yóbbalu àllaaxara ndeg bëgg adduna googu topp fiiri adduna yi ak bànneexu adduna bi dong di ko sàkku ci mboolem bëccëg yi di ko dajale te adduna soosu lu dara am pëndal rek la waaye am na ci nit ñi tamit ñoo xam ne suñu borom feesal na ci seeni xol ay xam-xam ak i sekkere ak ku ubbeeku ba seeni bët ak seeni xol am gis ci suñu borom joxoñ bañ dégg waxi subhanahu wa taala ji muy wax ci alquran ne inna ma haasihi alxayaatu dunya mataa wa inna laaxirata hiya daarul qaraar suñu borom de dafa wax ci alquran nañu adduna si yii de ngeen nekk di dund ay bagage la rek yoo xam ne bànneex bu gàtt la waaye àllaaxira ga nag mooy kër ga nga xam ne mooy kër bu sax waaye ga moo jëra faggu moo jëra ut ak yóbbal kon loolu wax yàlla subhanahu wa taala xaaj bi nga xam ne nag xam ne loolu ba ji dégg loolu ñu daal di jublu seen yitte lépp ci takkoog jéggalu seen borom subhanahu wa taala di tuddug sellam di ko sàbbaal di ko sant ci suba yi ak ngoon yi waaye di takkoo néegam yi muy néegam yi ci kaw suuf si ngir waxam ja nga xamne wax na ci ban hadisul qudsi suñu borom dafa wax ci hadisul qudsi ne inna buyoti fi ardil masajid sama neeg ci sama suuf ci moy jakkay da Dan ne ko siyaara si na benn ci sama neeg yoyu manam ku jaamu ci na ma ci ben ci sama neeg yoyu moy ki nga xamne ne taxaw ni di dundal sama neeg yoyu mu ne fa tuba li di tatahara fi bayti suma saara fi bayti mu ne taxe ñeexal na jaam bi laabee këram ñëw ci sama néeg boobu muy jàkka ja topp mu joxe fa ay faratam ci sama néeg boobu mu ne fa xaqun xalal ma suuri ayu karamu saaira mu ne yell na si mu teral ki ko maanaam yàlla na ci suñu borom subhanahu wa taala mu warlul tiraanga ñi nga xam ne dañuy joxe seeni farata si jàkk ya kon dem jàkka am maanaa la mbokk yi dana tax suñu borom warlul sa tiraanga dina tax suñu borom warlul ak texe waaye danga bokk si ñuy dundal néegi yàlla yooyu muy tiyaaba ju rëy kon na ngeen ci gën a farlu bu baax inna awala ma yuxaasabu a xabdu yawmal qiyaama assalaa na ngeen xam ne njëlbeenu li suñu borom bi njëkk a hisaab ci jàmm bi ëllëg yawmal qiyaam mooy julli fa isaa salluhat salluha saa'iri amali su julli baaxee mboolem jëf ji yëpp day baax ci baaxu julli googu bu julli baaxee mboolem jëfam yëpp day daal di baax ci baaxu julli waaye wa isa fasudat fasudat sairu amali waaye bu julli yàqoo mboolem jëfam yëpp day daal di yàqu ci yàqu julli googu kon julli mooy ndey jàmmu yàlla kon julli mooy ndey topp yàlla mooy sangub jaamu yàlla itam duñ nangu benn jaamu yàlla ak jaam bi ndare gannaaw bu suñu borom nangoo jaamu yàlla ak julli mu pare suñu borom sax du xool ci jaam bi genn jëfi farata wala naafila lu dul gannaaw bu mu xoolee faratay jullim ba noppi ci teqantal kon julli lu màgg la kawti fu màgg julli daal na ngeen xam ne mooy jamono bi jaam bi di diyaaleeg boroomam loolu la julli màggee mag nekk kawteef kawteefu màgg ndax waxtu wi jaam bi di jee déeyaale boromam day waxtu wu màgg kon jullee ngoog doy na la rek ci julli ngir nga topp ko diggante julli ak moroom ka diggante boobu jaam bi lu mu fi def ci ay ñaawteef wala ay rëcc rëcc wala ay bakkaar julli bi mujj julli da koy effacé kon julli lu màgg la na ngeen koy taxawal yal na yàlla dimbale leen ngeen ràññee nag bu baax ñaar yii ci julli muy loo xam ne du mën a ñàkk mukk ngeen koy wàccoo muy julli dafa am ay waxtu kenn mënta julli ak julli te waxtu waxtum wa jotul kon bu kenn ci yéen yàkkamti di xër di julli te waxtu wa ngay julli jotul kazalika kenn du julli tamit fekk waxtu wa passé lu dul ngànt ba ca des mooy julli itam dafa am jamono jamono bi jaam bi nekkee ci julli na ko wóor ne jamono bi mu nekk ak bu dul jamono boobu bokkuñu na ko wóor ne jamono ji mu nekkee ci julli mooy jamono ji muy deeyaale boroomam wara a dëddu adduna bàyyi adduna kii bagaasam fële saxe ba teewlu boroomam ci màggam ga waaye saxe ba dikkee tamit xàq ji julli xam ci jamono ji muy julli ci yemoo ga ci dal ga ci wéral pas-pas ya ci selal ga ci toroxlu ga ak dal ga lepp mu matal ko nam gëna rafété lolu moy ci nango julli julli bokoy def da ngay nango indi melokanu julli ci jamono ji nga nekké ci julli yàlla suñu borom dëppale yuan dëppale ñu ñu tegu ci yoon wa nga xamné moy yoon wa jub ba suñu borom yenkee wal ñu ñu man di sétantal bu baax alquran gi nga xamné ñu koy jang ba ñuy julli ngir mëna bokk suñu borom goow وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ربنا ما قضى الله باتنا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا